alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa sarrif wa karim ala sayidina muhammadin alhabib almahbub alazim aljaay al ali alxadri taal aminu wa imam almursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta halimul hakim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñëwaat nañu ak yéen ci jotaay bi ñuy am ak yéen altine bu nekk di njàngalem mag ñu baax ñu fi jiitu woon ñu tànnoon ci nag njàngalem mel na mag mu ñu wax maam Seydil Hadji Malick demoon ci kàggoom radiallahu taala anhu mu bëri téere lool ñu rocc si asi téere boo xam ne bu néew ay kayit la te njëriñi làmbu àdduna ak alaaxira muy téereem bi mu tuddee sajurul xulóob di ci jaaji xol yi an xubbi daaral xaloo ba nga xam ne dana walis lool ñuy sopp kër gii di kër àdduna nga xam ne muy kër goo xam ne kër gu doyale la ñu amoon ak kéeg nag fukki jotaay ak juróom di wax alhamdulilahi rabil alamin nga xam ne moom rek moo mën loolu tey war a nekk sun fukkeelu jotaay ak juróom benn keroog biñ ci yëkkati jotaay bi nag ñu ngi tolloon fi maam doon waxee kafaajiratin tas aari jàllan daxat hum ila baytiha wahiya riqaabal xaluubu fi maam di waxee ne di misaal àdduna la njëtëg lii la sax waxoon ne àdduna bii ala fa taqis a maxbiran na nga ko jàpp rek def ko muy ab pont boo xam ne ci ngay jaar jàll pont bi ngay jaar jàll ku la gis dana xam ne moos yow escalier ngay jaar escalier yi taxulaa foog nga jëm a tax comme niñ ko fi joxe woon rek misaal ta mag ñi daa ko wax waaw yoo ci kaw bu naat moom bu ca séentoo leneen lu dul nguur ko ca am fa tabaarakallaahu moom la koy tax a jóg rek moo di moom ku la gis ci la nga nekk rek yow la nga cay bëgg doo ca bëgg lu dul jëmmi yàlla nit ki itam dafa war a nekk insaalam yoo bu naat bi nekk àdduna nga xam ne jaar waaye rek la koy def la mu cay bëgg rek mooy nguur lépp lu muy def jëmmi yàlla tax lépp lu muy def jëmmu yàlla tax xool lu ca yàlla wax euh, suñ borom bi tabaaraka taala sax wax na ko ci alxuraan innama nutximukum li wajhi illaahi li ngi li ñuy def na yàlla rek tax innama nutximukum li wajhi illaahi ngir jëmmi yàlla rek laa nuriidu buñ ci bëgg jasa an genn ak deret yoobi buñ ci bëgg benn deret wala sukooran du ci bëgg itam nag gannaaw gu nooy ndax ku nekk xam na ne munu caa am deret itam gannaaw bu naat nooyul fa tabaarakallah loolu rek la eh, sunu borom bi tabaaraka wa di wax foofu inna naqaafu min rabbina yawman xaboon ila axiri al aaya eh, kon ñu war a tey fi maam di waxe di joxewaat misaal maam lu ne joxal nañu ko misaal wallahi ci àdduna ne tey mu war a commencé ak ñun kazaari bil maa baxri man kan xad yaroo moxa faqultuhu tasdaadu wa huwa saroobu maam ne kii sàkku àdduna kasaari bil waaw da ngay la eh, man xad yaroo moxa maam ne man ka nga xam ne xad yaroo moom sàkku àdduna rek rek moo ko tax a jóg kooku kasaari bil maa baxri dafa mel ni kuy naan ndoxam géej ndoxam géej moom dafa mel ni moom ndoxam géej lay naan te fa xultuhoo ca naan gam koy naan maram wa dafay doolee ndoxom ndoxum géej lay naan te buy naan ndoxum géej mi naan gim koy naan da koy yokk mar tas daadu muy doolee ko fa xultuhoo maram wa tas daadu muy doolee kon koy taw taw moom sëroo bu muy naan rek kon ku nekk xam na ne mbokk yi na muy def ndax géej kenn mënu koo naan bo mu jeex te naan gi koy naan da lay mar ngay naan rek ku nekk kon xam na ne fa nga jëm ah fatwaa ne àdduna gi xasiirun lu gàtta gàtt la lu néew a néew la boroom xel yi ñi nga xam ne yàlla doo nga leen taxaju xam nañu àdduna yàggool waaye yuraaxaa dañ koy gis ñan njor yuraaxaa dañuy njortu ne ñan alxaafiloo na way sàggane lu ñuy njortu ne ñoom tawilatun àdduna bi daal dong fi nekk lu yàgg la te wallaahi maam ne wamaahiya déet àdduna ilaa lamxatan ludut muy rek xifa xippi wal xuróobu waaw kay wax na ko àdduna bi daal xifa dafa mel ni ki melax rek melax fi muy feeñ ak fi muy nëbbuwaatee benn la sun borom tabaraka wa taala wax na ko ci alxuraan wa ma amru saxaatu illa kalam il basare aw aqrab gis nga ko wala sax nag mu gën koo gàtt gën koo néew dafa mel ni ki xefak xippi wala sax mu gën a gaaw xefak xippi maam misaaloon nañu ko ca jotaayee njëkkoon a jiitu ne àdduna ka àdd xaasu axlaamin badat wata xiibu dafa mel ni ki ay gént rek la xas fi ngay génteeg fi ngay yeewoo benn la waxoon nañu itam ne aqafu janaa an lil bu xóodati àdduna boo ko peese woon ak laafu yoo laafu yoo daane ko laafu yoo bu dee kon àdduna ku nekk xam na ne lu kiis nit nag ku nga xam ne dañoo sàggan maam ne dañ koy gis rek ñoom fekk na duñ fi jog waa ne àdduna bët àdduna kat bët keese la noonu sax lañ koy waxee maam ne am na sax fu maam di dénkaane woon waat ne àdduna ca ca dénkaaneem ba muy wax ne wa kam min fata yem si wa yusbihu daahikan wa akfaanahu mansuujatan wa hiya laa tadri maam ne bëri na ku xëy wa kam min fata bëri na asicam yem si koo xam ne gontu na daahikan di ree wa yusbihu wala mu xëy sax daahikan di ree te wa akfaanahu walaay lañ koy dencee mansuujatan ma ngi koy préparé bu dëkkee Dakar ka dem marchandise di jënd ay bagage di jaaykati tiise malikaan wala perkaal ka koy jaay luñ ko jaayee mu ji luñ ko fay mu jaay ko ko koy jëndee itam luñ ko ko jaayee mu jooy ko te waje boole ci yàkkamti lool te fekk am na kuñ ko war a sàngee tax wala sax muy moom nag fi nga koy jëndee bay dem yow yo oto boo jug rek benn place cee des wala sax fi ngay taxawee di waxaale nit ki ne ah, yow de boo gaawee mu yóbbaaleel man kaw lax laa jël te waxiya moom mooma laa tadri xamu ca dara ma nga toog fa mu wala sax muy moom muy moom mi koy jindi jënd nag far waaw loolu la maam di wax rek moo tax Umar bun Xataab radiyallaahu taala anhu ndeysaan moom nga xam ne ku doon bëri lu muy fàttaliku ku la di rek la boppam di wax nit ñi dee leen rek la seen tey balaa ëllëg daawut nangoon nettali nañ ne bu daa tukki Medina daawul bëgg a yàgg day ñëwaat Medina ndax dafa bokkoon ci lim daat ñaan dee Medina maam wax na ko ca ca la xaajaxal bi di wax ne waxat kaana yadduxoo al mawta waxat kaana nekkoon na moom Umar bun Xataab yadduxoo daat ñaan al mawta dee fan daara abibana ci kër ak soppe bi muy Madinatul Munawwar ndax foofa la bëggoon a dee bëggutoon a sorog yonent sallallahu alayhi wasallam moo taxit wa ah taa u jox na ko ko rab yi sama borom zaaka loola mu doon ñaan te woo moom Omar bun Xattaab jësoolu ku dëgër dëgër la jësoolu ëkk la jësoolu jàmbaar la ah, fa tabaarakallah ah, kon moo tax maam ne àdduna lu gàtt la mu ne kon ni ngay def àq yi wala boog mbokk yi sax ah, fa xam naa ñu gàttal ko yem foofu ba beneen ñoon bu ñëwaat commencé ni maam ne kon ni la maam di digal gannaaw ba àdduna yëpp noonu la mel. di wax ne luñ ci juum yàlla nañu ko suñu borom bi tabaraka wa taala jéggal doomu aadama moom juum te da koo yomb waaye yéen yéen sallallahu alayhi wa sallam nee na yi gën ci njuum yi mooy ñuy tuub ñu ngi koy jéggal suñu borom li fi nekk ñàkk wax ju ñàkk jaar yoon ñu ngi leen koy jéggalu ci ñàkk tegginu di wax ne hada ma ahlam wala di wax ne yàlla ñu yàlla boole ci ña nga xam ne buñ jéggee wax dañuy jaxalana allahu min allasina yastamihuuna alxawla fa yatabiuuna ahsana ulaayika lasina hadahumullahu wa ulaayika humul ulul albab yàlla na yàlla boole ñu ñi nga xam ne buñ déggee wax dañuy seet la ci gën a rafet ñu topp ko yàlla nee ñu ñooñu dañooy ay borom xel te ñoo am ak njub di wax ne haada ma ahlam walaahu ahlam fa maa kaana min tawfiqi fa min allah ndax wa ilayhi tawakkaltu wa ilayhi nuub wa maa kaana min taxsirin aw xatahin aw sooxi fahmin fa min nafsi wa min a seytaan waaleykum salaam wa rahmatullah Música